ngeen jot suñu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi ziare mbokki jullit yëpp mbokki tey sunu waxtaan dañu ko jëmale ci sunu way dawlu yi ñu leen di wax ab néew muy loo xam ne nag lu mat a def ay waxtaan la ndax réew mi ñu nekk di Sénégal gis naa fi ñu bari ñoo xam ne bi ñu fi jógee li ma xam ci ñoom bi may dund ak ñoom xamuma ko woon ci ñoom ki ma ciy jël misaal wala ñi ma ciy jël misaal ci ñi mujj rek mu di sëriñ Pape Malick Sy radiyallahu taala ak sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck muy ñaar ñoo xam ne li ñu wax lépp dëgg la ci ñoom waaye bari na ñu ko xamutoon bi ñuy dund kon jaadu nañ yéen ñi ñuy xamal nit bu bu fi génnee àdduna dee leen ñu ko xamal ci ak dundam ndax nun ñi nga xamante ni war nañ koo gën a jege ji wala nu war koo roy nu man koo def donte du weesu nag bu fi jógee waaye bari na ci réew mi ñoo xam ne sunu faatoo ngay xam la nu nekkee woon donte ñoom nag dañu koy nëbbu waaye yéen bu la leen ko nëbbale ndax lu baax wax ko dafa am solo moom mi ko def nag moom sañ na koo nëbb ngir loolu la leen yàlla sant ndax du ko ndamoo waaye lu mat a bàyyi xel la beneen bi mooy seede yi nga xam ne ñi ngi koy seede ci aji dem yi ngir yàlla nun bu ñuy seede nanuy seede lu nu xam lu am solo la damay faral di dégg nit ñi naan ah nit de bu faatoo da ngay wax ci moom lu baax na fekk moom mu doon def lu baax su fekkee daan na def lu baax jaadu na nga wax su daawut def lu baax nag nga maandu bañ koo wax donte xamal nga wala lu baax waaye du du obligatoire damaa war a wax ci moom lu baax déedéet na nuy seet li nuy wax bu nuy dund na nuy seet li nuy wax ci aji faatu muy lu am solo loo xam ne nag ñu bari dañ ko oyofal lu lu baax la waaye nag na fekk nag muy lu luñ la sant ndax mbir lu mu baax baax te santuñu la ko yaakaar naa ne la nga ci doon séntu mën nga ko bañ am. beneen bi mooy teel gi nga xam ne ñi ngi koy teel a denc aji dem mbokk yi nanuy seet ñiy dem ba xam dëgg-dëgg dem mi ngi ci ñoom bari na ñoo xam te ni ni ñu leen di waajalee ak la ca ànd yëpp doy na waar jaadu na kon nu koy càmbar ba xam nit ki dem na wala déet ndax am na ci yoo xam ne euh, du xool ko nii rek moo la ko mën a may yaakaar naa ko bokk kon lu mat di càmbar la ba ca toppit mooy mbàjj yi nga xamante ni ñi ngi leen koy euh, sànge di leen ko muure bare na ci mbàjj yoo xam ne seeni boroom xamuñ lu mu làmbool seeni boroom xamuñ ba xam am na sobe wala déet te koo xam ne nag dana ko laabal ba mu laab waroo jël lenn loo xam te ni lu koy taqal la di ko teg ci kawam te moom du mën a wax ne lii nu ma teg nangam la kon mbàjj yi ku munta am ut yu yees na koy yeesal donte nag euh, luy bette lay doon ndax euh, ñu bari seenu gëm yàlla aju wut ci eh, maanaam jël dara di ko denc ngir ëllëg bu nu fa jógee bëriwut ñu koy def waaye ki nga xam te ni moom bu donte moo ko dencal boppamit it du ko mën a sàng boppam kon ñun ñi nga xam te ni noo fi dese ndeegun ak néew di ko ko sànge nanu koy seet bu baax a baax baax baax a baax te di ñaanal nag saa su nekk ab julit waruta dégg kenn ko faatu mu di jullit te ñaanalu ko wala mu julli waxtu juróomi te ñaanalu aji dem yi lu am solo la bu nu koy fàttee ñu leen di ñaanal ñaan rek la ñu dese ak ñoom ñi nga xamante ni suñu borom dimbale na leen tamit ñu war a sàkku ci ñoom barke nanu koy sàkku ci ñoom waaye fi ne ñun képp koo xamante ni euh, faatu na dangay dégg ñu ne yàlla na ko yàlla yërëm waaye suñ la waxee ana diw nga ne diw moomu de yàlla na ko yàlla yërëm ñu ne kañ la faatu day mel ne kon yërmande yàlla ci ka faatu rek la déedéet yërmande yàlla ci mbindeefam yépp la kon nun nanu leen di ñaanal bu baax te di leen fàttaliku tey càmbar yenn demin yi am na ci yenn demin yoo xam ne jaadu na ñu càmbar ko ba xam dem na wala déet kon nag loolu la ñu indi woon tey ngir di ko euh, baaxee jullit yi ngir sunu mbokk jullit yi nga xam te ne jiit nañ di leen ñaanal yàlla sunu borom njëggalam di leen ñaanal yàlla sunu borom yërmandeem ci darajay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen jot suñu vidéo nag